Thank you. sunu gëstu tey ñu jëmale ko ci kii nga xam ne moo di Amilcar Cabral moom nag ñu ko doon woowee Abel Diassi mu bokk ci ki nga xam ne moo xeex ba lii di Guinée-Bissau île du Cap-Vert daal di am li nga xam ne moo di seen indépendance maanaam daal di moom li nga xam ne moo di seen bopp jamono jooju nag ñi leen colonisé woon nekkoon waa Portugal moom mi di Cabral mu ngi juddu niki fukki fan ak ñaar ci weerum septembre ci atum 1924 fële ca Bafata Fata ca ba Fata nekk ca Portugal moom nag waajuram bu góor tuddoon Juvenal waajuram bu jigéen tuddoon Eva Pinel Evora moom nag mu daal di ñàkk bakkanam rek ci ñaar fukki fan ci weerum janvier ci atum 1973 laata rek Guinée Bissau ak île du Cap Vert di daal di jot li nga xam ne moo de seen indépendance moom mii di Cabral dañ ko assassiné woon fële ca Conakry ci ndiggalu waa Portugal moom mii di Cabral mu nekkoon ab homme politique politique maanaam koo xam ne da doon yëngu ci wàllum politique ak li nga xam ne moo di doon xeex ngir li nga xam ne moo di Afrique daal di jot boppam loolee sax taxoon boobu daal di créer parti bi ñu dippee PAIGC maanaam ci parti Partido Africano de Independência de Guinée i Cabo Verde boobulee parti sax ak liggéey yi nga xam ne daal dina ko amal rek ngir jëm ci ñaari dëkk yooyee tax ba ñoom ñu daal di moom seen bopp dal di génn ci loxo ñi nga xam ne moo moom mii di Cabral daal di amal ab formation ca université technique bu Lisbonne mu nekkoon ab ingénieur agronome jiitaloon lépp lu jëm ci wàllum science ak technique agronome mu daal di doon jëmbat rek lépp lu jëm ci wàllum technique mécanique maanaam ci lu ñuy dund jëm ci li nga xam ne moo di mbay mi ci napp gi ak yeneen xeet yoo xam ne ci secteur primaire la bokk waaye leneen tamit loo xam ne da ko doon liggéey rek moo di ci wàllum management maanaam rek wàllum gunge wala wàllum jiite ci yenn entreprise privée yi ak ay ay entreprise publique moom nag mu yoroon mu bokkoon rek ci mouvement anticolonialisme maanaam ñi nga xam ne rek ñoo doon xeex ngir dëkk Afrique yi daal di moom seen bopp loolu yépp bokk ci combat bi nga xam ne rek mu ko doon defal ngir li nga xam ne moo di Afrique ci ab réunion bu ñu amaloon mu daal di dëggal li nga xam ne mooy révolutionnaliste bi mu doon maanaam xeex ngir mun fee jëlee lu jëm ci wàllum nootal wala yeneen yi nga xam ne rek ñoo ko doon def ba ci biir Afrique loolee waral sax waa Portugal daal di ko assassiné fële ca Conakry gannaaw ba nga xam ne rek daal dina ñàkk bakkanam niki ñaar fukki fan ci weexum décembre niki ñaar fukki fan ci waarum septembre ci atum 1974 si la nag ñaari dëkk yooyu daal di am seen indépendance néem wuute na ko waaye nag mën nañ ne rek loole nga xam ne moo nekkoon ba bëtam daal dina antu ci li nga xam ne moo di gannaawam kookee nag nekk Amil Cabral